alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawali alwali wa radiyallahu an shaykhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barik bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi teew ci jotaay bi ak ñi koy topp ak fu ñu ko mën a toppee ñu ngi dellusi ci jotaay yu tedd yi ñu baaxoo ànd ak yéen ci weer wu tedd bi ci barab bu sell bi ci wetu sëriñ bu màgg bi di ci fàttalante ak jàngalante sunu diine ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam digalee leeralee ko itam ndigalul suñu borom loola nga xam ne moom la waxoon dee leen fàttalante ndax fàttalante day jariñ way gëm ñi ci jataay yooyu kon ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu niñ leen ko diggee woon démb bi ñu jeexal jataayub juróomeel bi ne leen tey jii ci waxtu yi di ngeen amaat beneen jotaay boo xam ne sëñ Chouaïbou bu Jóob démb waxoon na leen danañ waxtaanee tomb bu am solo ma fàttali leen ko mooy jariñ fi yàlla yi ban solo si mu am ak ci nan lañ ko mën a amalee ku bëgg jariñ mbindeef yi ci yan anam wala ci yan yoon nga mën a jaar ngir njariñ loolu nga bëgg a jariñ mbindeef yàlla yi egg ci ñoom loolu la ñu fas yéene waxtaane tey niñ leen ko diggee woon démb insha allahu taala jotaay bi ni ngeen ko baaxoo ànd ak ñun képp koo xamante ne am na ab laaj bu jëm ci waxtaan wi mën na ko laaj am na ñu koy jox ay kayit yu ko bëgg a bind ni ki noonu képp koo xam ne am na ab laaj boo xam ne génn na li ñuy waxtaanee te mu ñor ko ci wàllu diineem mën na koo bind joxe ko waaye mën na koo jaarale itam ci jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jaarale waxtaan yi mooy telegram wala whatsapp wala mu fu ko mën a jaarale ba mu egsi yi incha allah des na ko tontu ci jotaay yi nga xam ne dañ koo jagleel wàllu googu ñu ngi war a ànd ak ku ngeen miin ci jotaay yu mel nii muy sëriñ Abu Mbàkke moom sëriñ Bachiru Moor daanaka du jar ñu leen koy présenté waat ndax miin nañoo ànd ak moom ci ay jotaay yi yu bari yoo xamante ne jotaay xam-xam la yu mel ni ki nii waaye ci jotaay bii nga xam ne mooy ci jomaa ji ci koor gi gis ngeen ko ay yoon mu romb fi jaar fi fàttalante leeral loo xamante ne ay tomb yu wuute yi ci gën a fees di am loo xamante day lëkkaloo ak dunduk sëriñ bu mag bi ak njàngaleem mii nga xamante ne moom lañu fi bàyyil ñun ñëpp ñu war koo gëstu war koo xam loolu day firndeel ne moom ginnaaw bu mu jàngee fii ci Touba alxuraan ba mokkal ko jàngi li ëpp ci xam-xam ci biir Touba ci jàngukaay yi gën a mag ñu gën leen a ràññee fii ci biir Touba muy ci jumaa ji ci Sëriñ Alaaji Mbàkke Jaxate waaye fee ci kër Sëriñ Abibu nga xamante ne ñaari jànguwaay lañ yoo xamante ne ñëpp ràññee nañ ñi nga xamante ne ñoo fa génnee ñu nekk ay kàngam gannaaw bi yem doyluwul ca loola waaye dem na eh, Thiès ca Al Azhar bu sëñ Murtala bi nekk foofu yokk fa àlliwaam ba fa génnee nag ba suñu jonn yàllay tey jii mësta wan gannaaw xam-xam ak gëstu ab gëstoom nag mu jëmale ko gën koo jëmale ci woote Sëñ tubaab yi na la ñu gëstoo ba gën koo mën a leeral ba ñi nga xamante ne ñoo wuy si woote bi xam li sëriñ bi woote lan la kon jamono ji ab jàngalekat la ci dëkk bi waaye di ab gëstukat ci yoon wi ak woote bi sëñ Tuubaa bii nga xamante ne moom la woote ngir yeesal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam sëñ boobu la ñu war a àndal ci waxtaan wi kon tomb bi mu waxtaanee muy jariñ mbindeef yi solo si mu am ak nan lañ ko mën a jëmmalee loola danañu ko leeral waaye itam xamalaale ñu sëñ bu mag bii nga xamante ne moom ci mbooram lay gëstu nan la ko jëmmalee jaaree ko nag ci mboolem gaa yu baax yi nga xamante ne yépp mas nañ fay jaar kenn ku ne la nga def ca wàllu googa ngir ñun ñuy diglu bu ñu fi jógee daal di mën a tàmbali xool ñun naka lañ mën a def ba jariñ mbindeef yàlla yi danañ mën a xam itam lan lañ mën a góobee ci buñ jariñee mbindeef yàlla yi lan lañ cey góobee lan lañ cey jariñoo kon sëñ Abo ñu ngi lay ñaanal tawfiq nga jàllale li nga bëgg jàllale ni nga ko bëgg a jàllalee yàlla defal ñi nga xamante ne ñun ñooy way topp yi ñu dégg ko déggin wu gën a rafet te yàlla tawfiqal ñu mën a topp la ca gën a rafet incha allah sëriñ Abo bismillah. aouzu billahi min alhamdulilahi rabbil alamin wa salla allahu wa sallama wa baaraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri xadimi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ilayka tubtu tawbatan nasuha waj'al lisaani fi rida fasiha laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirru man amana billahi walyawmi alaxir walmalaikati walkitaabi wannabiina wa aata almaal wa aata almaal ala xubbihi dawi alqurbe walyataame walmasakina wabna alsabil wassaailina wa fi rriqaab mbokk yi noo ngi jël nuyoo ya gën a kawe ak ziyaar ya gën a kawe ak ndokkeel ya gën a kawe di ko jëme ci ku baax kii ci biir rawdatu bi di ashaykhul xadim ashaykhul xadim imaamul wara jammul qira niamatul qura wasiqul ura naafil kara muctalil himam wabnu jala shamsul ula sharaful mala azimul wila saafil wala kaashiful gumam wal mujtaba naafil waba tayibu saba rafiicu rubaa birribaal xaafidu dimam jazilu luha man bissuha qaasahu saha azimu faaqa fi lqidam noo ngi yeesal sunu aju ci moom li wajhillaahi taala alkarim di sant yàlla ci booleeg gi munu booleeg moom di ko àddiyaale bayitu cheikh muhammadul faadil wa gannaaw buñ ko kañee ci bayiti cheikh ibrahima jóob machar yi fa kun fi nicmatin abadan muqiima muaafan murtadan cheikh alxadimi sëñ Tuubaa moom moo jëmmal dëgg-dëgg Maodo bi tam bi ñuy waxtaane sëñ Tuubaa mooy ki ko jëmmal dëgg-dëgg ni ko sëriñ sëñ Amdul Moustapha Mbàkke waxe sëñ Tuubaa moo moo jariñ mbindeef yi dëgg-dëgg ni ko xaritam ba seere Cheikh Sidiya te xarit mën naa seere ne woon na sëñ Tuubaa doomu aadama bu fekkee munta ñàkk sikk sëñ bi ñaar moo doon sikkam sax ci jaamu boroomam ak sax ci jariñ jariñ mbindeef yi ci subaam ak i ngoonam maanaam bu xëyee moom la yendoo bu gontee moom lay fanaane wa maa aybuhu illa wa fi subhihi masaa'ihi moo ngi jël nuyu ak i ndokkeel di ko jëme ci xalifaam bi xalifaam bi Cheikh Mamadul Muntaqa moom sax nangu wuta tudde boppam xalifaam la muy bind di ko signé di ko wax mooy as ngóoram lay wax xulaamul xadim xulaamul xadim noo ngi sant bu baax daayira muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi sëñ Tuubaa lii rek la ñaanoon ci dëkk bi jataay yu mel nii dafa ñaan yàlla mu def ko muy dëkku wane aw yoon dëkk buy gindee dëkk buy jàngale dëkk buy jubbanti dëkk buy jubbanti dëkk buy déggal nit ki diineem wa maskan al irshaadi wa taalimi wa maskan al wa tafhimi moo tax sëriñ saalixu mu baax ma radiallahu taala da daan soññee ci jataay yu mel nii dadaa wax ne deeween dee leen dee leen teewee muxaadara di muy jataay yi kon ñi fi teew ñépp noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru mag wi di nuyoo ko ndokkeel ñiy topp jataay bi ñépp ak fu ñu mën a nekk di ndokkeel jullit yépp ci weer wi di ñaan sunu boroom defal nu ci tawfiq te nangul nu ko mawdu bi te mooy tam bi ni ko sëñ Amdi Moustapha waxe mooy naf'ul xalqi ahamiyatuhu wa majaalaatuhu jariñ mbindeef yi solo sim am ak fànn yi ñu koy defee nan lañuy ñuy jariñee mbindeef yi bu ñuy xamle jariñ mbindeef yi jariñ mooy lan kenn nit ku ne walla mbooloo yëngatu bu ñu def yëngatu booba di jañal lor nit ñi walla mu leen di xëccal njariñ xëccal aw yiw loolu mooy dëgg-dëgg nafa mooy jariñ mbindeef yi lépp bépp yëngatu bu ñu yëngatu mu mën a ja jañal nit ñi lor wala mu xëccal leen njariñ loolu mooy jariñ bindéef yi bokk na ci solo sim am amul kenn ko doyloo sa bopp ba soxla woo ko la jariñ mbindéef yi amut loolu doy na sëkk rek misaal kenn ku ne xool ba muy ñëw àdduna nit ku ne bi muy ñëw àdduna bu ko kenn jariñutoon du baax bu génnee àdduna itam bu ko kenn jariñut du baax kon kenn doylu wut mel ni ci ñu di ko jariñ jariñ mbindeef yi mooy melaw yonent yi sallallahu alayhi wasalaatu wasalaam moo doon seeni melo lañ jëkka a jariñe mbindeef yi mooy setal seeni xol setal seeni xol def ci ñoom gëm yàlla ak wéetal ko wan leen nag yoon wu ñuy jaar ba mucc àdduna mucc alaaxira loolu moo jiitu ci njariñ yi moo tax sayyiduna isa alayhi salaam ci alquran gis ngeen mu ne wa jaalani mubaarakan aynama kuntu sunu boroom def na ma may ku ñu barkeel fu ma mën a ne ñiy leeral alquran mufassirun yi dañ koy firee ne mooy jaalani nafaan nafaan xaytuma tawajjate sunu boroom def na ma may ab jariñkat ku bari njariñ fu man dem rekk jariñ fa moo tax nga gis ci alquran muy lim njariñ yu bari yamu daa jariñ bi ndeefi mooy sayidna isa wa ubriwu lëkkamaha wala brasa wa uxyil mawta bi idnillah foo mu fekk ku munta wax wala ku silmaxa mu faj ko fu fekk ko yor tawat ju ju raglu ju tiitlu mu faj ko fu fekk sax ku faatu ci ci ndigalul yàlla akub sañ-sañam mu man koo dekkal ba kooka dundaat di jariñ boppam te jariñ bindéef yi sayyiduna isa alayhi salaam kon loolu meraw melaw yonent yi la woon sunu boroom digle ci ay yu bari ci alquran nit ki di génn alalam di ko jariñe mbindeef yi infaq fi sabilillah bu ñu ko waxee mooy jariñ ci mbindeef yi rek ndax sunu boroom moom ku doylu la soxlaalul kenn dara moo tax muy digle ñu nit ki génn alalam di ko joxe di digle yërëmante di digle dimbalante yooyu yépp mi ngi ci alquran di digle defar diggante nit ñi waa wa aslihu daata baynikum ak yu dul yooyu yoo xam ne lépp day delluwaat di jariñ nit ñi kon lépp loo xam ne njariñul mbindeef yaa nga ca sunu boroom maa ngi koy soññee ci alquran di ca soññi mbindeef yépp moo tax aay boobu mu tàmbalee di laysal birru sunu boroom dafa ne na xam ne ak mbaax topp yàlla jaamu yàlla nekkul rekk yemul yemul rekk ci jublu xiblay kabar jublu penkuy kabar loolu rek du mbaax mu ne waaye mbaax la ca jiitu mooy ngëm gëm moom boo dara amagut gëm yàlla gëm yi ñu war a gëm yépp ba noppee nag wa aatal maala ala xubbihi yëkkati alalam di ci jariñ nit ñi loo xam ne moom soxla na ko te ña ca gën a yay muy ña gën a jege néew ji doole yi ñu seen loxo jotul seen gannaaw doxandeem yi ak képp kuy laaj képp ko soxla di laaj rek ngir jariñoo nga nga nga jariñ ko loolu la jiital soog ne wa aqama sala kon foofu da nga fi xam jariñ bindeef yi ni mu toll sunu boroom ne ca alquran saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi lsarai wa والكاظمين الغيث والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin jëkkante leen yéen nit ñi jëkkante leen gaaw leen wuti seen njëggalu boroom wuti aljanna aljanna ja nga xam ne dañ ko waajal ngir ñu ragal yàlla ña nga xam ne dañuy yëkkati seen alal di ci jëriñ bindeef yi jamono ju neex ak jamono ju naqari ñi nga xam ne buñ meree danañ ko nëbb danañ muñ nëbb ko ba duñ lor kenn ñi nga xam ne lu leen nit def ñu jéggal ko kon yooyu yépp boo ca delloo da ngay gis ne génnut jariñ bindeef yi kon loolu mooy yoonu wut njéggalu yàlla mooy yoonu aljanna te mooy jariñ bindeef yi sunu boroom dafa soññee ci jariñ bindeef yi ba àgg ci ne lépp loo yëkkati joxe ko ngir mbindeef jariñoo ko danaa la ko wuutalal doo ko ñàkk wa ma faqatum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin kon loolu loolu lépp moo tax benn wakeej bu ñu ata suleymaan ne yaa man tasaddaqa maalullahi tabduluhu fi awjuhi alxayri maalil maali nuqsaanu yow mi nga xam ne alal jii nga yëkkat di ko joxe na nga xam ne moomoo ko wa aatuhum min maalillahi alladi alal ko moom te na xam ne alal jiir yëkkati ko jariñ ci mbindeef yi du ko wàññi du ko wàññi ndax sunu boroom loo joxe moo tax mu ne kam daafa allahu maalan jaada saaxibuhu inna saxaa bi xukmillaahi ridwaan mu ne yàlla boo yëkkatee joxe jariñ bindeef yi dalay fulal loola dalay delloo la ko moo tax alal joxe jariñ bindeef yi du du du du ñàkk jariñ bindeef yi yonent bi soññee na ca bokk na ci nga xam solo si mu am yonante bi soññee na ca daana tere sax dara loo xam da koy tere dem ba ci kanam mu déglewaat ko ngir loola day nekk lu mën a jariñ bindéef yi sayiduna jaabir dafa wax ne dama amoon nijaay joo xam ne dadaa mocc dadaa mocc ku jiit fet da ko daa mocc am jamono nag yonante bi tere mocc nee na moom mu ñëw ci yonent bi ne ko yow kat tere nga mocc waaye man ku jiit fecc fett ku jiit fett dama la daa mocc yonent bi ne ko man istataa minkum an yanfaa axaahu falyafal loo mën a jariñe sa mbokk te mooy mbindeef jariñ ko ci nga xam ne loolu tere woon na ko waaye gis na njariñul mbindeef la yi defi la njariñul mbindeef yi la tax na mu mu déglewaat ko sëñ Tuubaa wax na ne yëkkati sa alal joxe ko ak noo ko mën a joxe moo xam sarxe la moo xam addiye la moo xam lu mën a doon mbindeef jariñoo ko nee na yooyu yu baax yépp na ci lépp looy wut ci lu baax yëkkati sa alal jariñ ca mbindeef yi boole na yooyu amma tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi ka kulli ma yakunu nafa al muslimin ak lépp loo xam ne danga koy def rek muy jariñ jullit yi na nga xam ne looloo loo bëgg ci yu magaca sëñ tubaa dem ba àgg ci ne bis pénc buñ jëlee siraat gàll ci kaw sawara gàll ko ca siraat du di lu raglu mbindeef yépp di jànkonteeki tiis ak i njàqare nee na dañuy yebal kuy woote ci kaw naan ana ñi daa jariñ jullit ñi ana ñi leen daa liggéeyal ñoom ñépp ñu wuyu ñu jox leen digal ñu gaaw ñoom dugg aljanna ñu gaaw dugg aljanna bi an yuqaala lahu mundul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna yéen dem leen aljanna coono yeeg fitna yi yéen du ngeen ci jaar ndax lañ ndax lan ñoom dañu daa jariñ mbindeef yi moo tax mu ne faxdimuhumu turan li wajhillaahi faqat bila mannin wala ishtibaahi kon solo si jariñ mbindeef yi am loolu doy na ci ñu laaral ko ñu ñëw nag ci fànn gi lan ci yan anam la ñuy jariñe mbindeef yi jariñ mbindeef yi bu ci xeeb dara lu mu néew néew loo mën a def mbindéef jariñoo ko bu ko xeeb donte jataay bii nga toog sax nga seet ku am nga séen ku amul fu mu toog nga ñëw topp ne ko toogal njariñ loolu jërul xeeb waaye nag na fekk mu bañ a ànd ak lor jariñ mbindeef yi booy jariñ sa mbokk na fekk bu mu ànd ak lor sa maneen bokk ci misaal dañ koy gis ci sàppe yi sàppe yi ñu jullee danga gis ku seen waayam amul fu mu toog mu fette sa ko mu ñëw te fi ko bëgg a xajal mu toog fa ki dend ak moom bu fa toogee moom duutu yaatooti kon mi ngi jariñ ke waaye mi ngi lor kii kon njariñ dëgg dëgg la am njariñ mooy di jariñ ngir yàlla te bu ca lor jógee di lor kanam loolu itam njariñ bi def yi la bokk Abu daw dafa nettali ne am na koo xam ne la ko yàlla jéggale dugal ko dugal ko aljanna mooy dafa jaaroon ci garab gis fa car boo xam ne dafa ami dégg te car ba suufe ku fa romb mën na laa jam wala car bu daanu ku fa romb dégg ko mu jam la mu tàgg car ba wala mu toppale ko loolu sunu borom sant ko ci ba dugal ko ci aljanna loolu la may tekki mooy njariñ dara jaru ca xeet ba ci ndundat yi xayawaanaat yi xattali leen jariñ leen sax jarul xeet sëñ Tuba nee na waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa sunu borom moo bind lépp mbindeef yi kenn doonu ci dara ko dul yàlla yàlla dong leen bind moo tax sëñ Tuba ne mbindeef yooyu nag na nanga sàmm ci ñoom àq yàlla mi leen bind ndax ndundër yooyu fi ne ñoom dañuy jariñante ci seen biir dañuy jariñante ci seen biir ñoom gis ngeen xorondoom wa ci jamonoy sayiduna suleymaan aleyhi salaam suleymaan dafa nekkoon ku bari doole nguur gu nguur gu màgg màgg la ko sunu borom defaloon sayiduna suleymaan benn bis nag muy génn ànd ak soldaar ak dooleem juree jooju nara romb nag xuru xorondoom seen xur fi ñu nekk xatta ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayuha namlu duxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun xorondom a génn leen yéen xorondom bi gaaw leen dugg gaaw leen dugg seeni kër balaa suleymaan a agsi soldaaram yi kenn xamul nu ñu toll moxoña leen te duñ ko yëg gis nga ni ñuy jéem a jariñante ñoom ñoom ci seen biir kon mbindeef yi buñ ko waxee ni ma ko waxee li yi amul xel ñi nga xam ne duñ nit sax jaruñu caa génne koo ca mën a jariñ jariñ ko yonent bi ne woon na am na bi soxna soo xam ne soxna su daan jaay boppam la def lu naqar yàlla ci banu Israël la bokkoon waaye la ko yàlla jéggale benn bis dafa gis benn këlb benn dawkat mar bay génn làmmiñu nga xam ne bu naanut mën naa dee nee na mu summi dàllam dàll dàllu jigéen bu doon léegi mën nga ne koket mën naa def ndox summi ko duy ci ndox ñëw jox xaj bi mu naan ba màndi sowe loolu sowe ko sunu boroom jéggal ko ca loola ak la mu fa mu jaar fépp ba dugal ko aljanna waaye lor leen ñitam lor leen ba mu ko waxee saxaaba yi ne ko ndund bàyyi may sax bàyyi may sax ab yool a ngi ci yonent bi ne leen lépp lu am res wuy tooy ab yool a nga ca boo ko xetti mbaa nga jariñ ko mën nga ca amee njéggalug yàlla naka noonu lor ko bàyyi ma li muy ñàkk li muy nuru lu suufee lor ko mën naa indi lor ba te yenent bi nee na Abdullah ibn Omar moo ko nettali soxna soo xam ne moom it dafa tëjoon am muus tëj ko ci biir bàyyiwu ko mu ma joxu ko mu lekk joxu ko mu naan te bàyyiwu ko mu lekki bàyyi ko bàyyiwu ko mu wuti lum naan ba muus ma dee sunu borom mbugal ko ca loola ba dugal ko sawara kon loolu itam danañ ci mën a xamee gis nga ci suñ jamono jii rek Serigne Chouaïbou Mbacké radiyallahu taala anhu démb rek lañ ko doon fàttaliku ci biir këram dafa wutoon ay ngàmb di wut def ci def ndox ak pepp wut kuy saytu ngir njanaaw yi rek njanaaw yi rek la ko defal wut koo xam ne mooy taxaw ca loola am na bés boo xam ne dafa toog ay pitax ñëw ba ci wetam wàcc wàcc lu lu yéeme am ku ne ko dafa mel ne dañoo xam ne danga leen a yërëm mu ne bu ñu xamoon li ma leen ëmbal ci yërmande day danañ ma gën a jege sax kon kon am na bis boo xam ne dafa dafa sëñ Mor may moo ma ko nettali nee na dafa gis benn donga yor mel na pitax romb ko mu tàng jër jóg ci naaju tàng bi soluti dal ne ko foo ko jële mu ne ko barab sang mu ne ko nañ dem nga wax ma fi nga ko jële mu ànd ak moom ba ca barab ba mu ne ko tegal mu teg mu digle nañ mu digle nañ ko wutal pepp wutal ko ndox moom pitax ma nee na ba mu dellusi sañ Moor nee na ma ne ko Mbàkke bari nga yërëm ma ne lool di nee na mu ne ma dama bëgg ku ma yërëm loolu mooy yenente bi waxoon ne irhamu man fil ard ko man fi sama yërëm leen ñi leen féete suuf yàlla mi leen féete kaw yërëm leen kon jariñ bindeef yi donte bàyyi mi la mën na mën na maye yërmande yàlla abul fathil busti nee na ahsin ida kaana imkaanun wa maqdiratun falan yaduuma ma al insaani imkaanu boo dee dund am doole loo mën a def ci lu baax jariñ ci mbindeef yi rek def ko ndax kàttan sax diggante bu gàtt dutoo ko man kon profitool ci loolu am na bis ku ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ànd ak pëstéef bu kawe na ko dama bëgg nga wax ma def lu baax nga tegtal ma ci lenn ma dëkke ko def lu baax ànd ak positif bu koy ni ma ko waxee yonente bi na ko lu baax bu ca xeeb dara lépp loo xam ne luy jariñ bindeef la dara bu ko ca xeeb donte ko solu dàllam la waroo dàll wa dagg nga àll jël ak buum jox ko mu takkaat ko bu ko xeeb loolu jërul xeeb ne ko ku ni ma waxoon léegi aw yoon nga daja dajafaak nit yaatal ko bu ko xeeb dajeeg nit ne ko asalaamaaleykum bu ko xeeb bu ko xeeb nit ku wéet nga ñëw wéttili ko bu ko xeeb kon jariñ mbindeef yi daal dara jaru ca xeeb sunu boroom nee na ci alquran lépp loo def ci yiw ci lu baax lu mu néew néew danga teg sa bët ca pay ga fa man yaamal misqaala darratin xayran yara gis nga mu wax ne ñiy yëkkati seen alal di ca jariñe lu mu néew néew lu mu bari bari danañ leen ko fay nam gën a rafete wala yunfiquuna nafaqatan saxiratan wala kabiratan wala yaqta'uuna waadiyan illa kutiba lahum liyajzihum allahu ahsana ma kaanu yamaluun kon def lu baax rawatina luy jëriñ bindeef yi man man nañoo def loo xam ne gis loo xam ne day xeebu lool ci sunuy bët ak ci sunuy xol te buñ ko defoon rek sunu tax ak àdduna ak àllaaxira mën na caa juddoo kon jariñe dara mënu caa xeeb kon nañu fas yéene nun ñëpp di baril suñ kem kàttan lu ñuy jariñe mbindeef yi mën nañ cee jële ab yool mën nañ cee jële cofeelug yàlla jëriñ mbindeef yi day maye cofeelug yàlla anas ibnu malik nee na ko taqoon ak yonent bi ci biir këram radiyallahu anhu nee na yonent bi nee na alxalqu kulluhum ayaalullah wa ahabu xalqihi ilayhi anfaauhum li ayaali nee na mbindeef yi yépp njabootug yàlla lañu ñoom ñépp ka gënal yàlla ci ñoom nag ka ca yàlla gën a sopp mooy ka ëppal njariñ mbindeefam yooyu ka leen ëppal njariñ yàlla moo jaboote mbindeef yépp ndax moo leen sàkk di leen wërsëgal ni mu ko waxee ci alquran moo leen sàkk di leen wërsëgal wax na yaay ayuha nnaasu antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyul xamid yàlla kon ñépp ci dañoo aajowoo jëm ci moom kon lépp loo defal mbindeef yàlla nga ko defal la def ko ngir yàlla loo jëriñ bindeef rek ca yàlla lay dellu moo tax Abu Hurayra nettali na yonent bi nee na bis pénc bis ci sunu boroom dana téye ci loxol kenn ci doomu aadama yi ne ko diw tawat naata seet si ma mu ne ko nu ma lay seetee te yow ngay boroom bindeef yi ak ni nga toll maanaam mu ne ko xamoon nga ne diw samab jaam tawatoon na te seeti ko xanaa xamu ne boo ko seeti woon mën nga fay fekk man nga fay fekk nee na dana wax kanaan ne ko diw xiifoon naa te joxoo ma ma lekk mu ne ko nu nu ma lay joxe lekk te yow nga moom lépp soxlawoo dara mu ne ko xamoon nga ne sama jaam diw xiifoon na te yow amoon nga loo ko mën a jox te joxoo ko xanaa xamoo ne boo ko yotoon mu lekk man nga fay fekk kon loolu li muy tegtal mooy lépp loo def ci mbindeef yi ci njariñ ci sunu warum lay dellu tabaaraka wa taala imaamu Shafii nee na ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne aajoy nit ñi dañuy fajoo ci moom ci ay loxom wa afdalu nnaasi ma bayna alwara rajulun tuqda ala yadihi linnaasi xaajaatu nee na li feeg yaa ngi dund loo man ci lu baax de ko def bul téye sa loxo mukk li feeg yaa ngi dund rek loo man ci lu baax danga ko def ndax yiw yiwu kenn xamul maga ca laa tamna'anna yadal maarufi an ahadin maa dumtu maa dumtu muqtadiran fa saadu taaraatu nee na am na ñoo xam ne dem nañu ba faatu na ci seeni bàmmeel waaye dañoo mel na ñu ngi dund ñu ngi ndax seen jëf yu baax yañ fay bàyyi muy jariñ bindeef yi yépp ngi fi nit ñi di ko jariñoo ba tey mu ne waaye am na ñoo xam ne ñu ngi dund waaye dañoo mel ne ñu faatu ndax seenu ñàkk njariñ am na ñoo xam ne doo am yitte mukk ba sa xel daj daj leen nee na kooku mook ñafaatu ñoo yam xat maata qawmun wa ma maatat makaarimuhum wa aasha qawmun wa hum fi moo tax am na boroom xam-xam bu ne sunu boroom dafa dafa ginnaaw moom xeebut yàlla xeebut guuxum ndox boo may ab jaamam xeebut dammitu mburu sax woo ko may mu ne naka nag ki nga xam ne moom fu mu toll mi ngi ci luy jariñ bindeef yi ak lépp loo xam ne dana leen seen lor la mu cay jéem di leen ko di leen ko fegal kon jariñ bindeef rek ci wàllu wàllu matériel lépp loo mën a jariñe bindeef ci maanaa mën nga leen caa jariñ lu mel ne xam lu mel ne jataay yi jataay xam-xam yi dara ëpp ko solo ci jariñ bindeef yi ndax li fi nit mën a jariñoo laabiire ci jariñ bindeef yi la bokk nit ki ñëw diisoog yow nga teg ko ci yoon wa nga jàpp ne moo koy jariñ loolu jërul xeeb ci jariñ bindeef yi la bokk ak lu mel noonu lépp loo man lépp loo man daal loo xam ne mën nga caa jariñ sa mbokk jariñ ko ca boo ko defee yaa ngi ci biir ñu yàlla sopp yaa ngi ci biir ñu yàlla sopp te cofeelug yàlla nag ab jaam bu ko xasee am lan lay soxlaati cofeelug yàlla ana lan moo ko féete kaw manzilatun ma baadaha manzila kon mooy daraja ji ka gën a kawe te sunu borom nee na bu soppee ab jaam bu demee bëgg ab jaamam day woo jibril ma ko gën a jege sayyidina jibril alayhi salaam ne ko diw sopp naa ko sopp ko jibril daal di koy sopp fasaasa daal di yéene ci kaw asamaan waa kaw ñépp ne leen yéen waa kaw sunu borom sopp na diw sopp leen ko waa kaw gépp sopp ko fasaasa mu mu wàcceel ko xabul ci kaw suuf nag ak nangu mbindeef yi yépp nangul ko sopp ko lépp tegu ci kaw cofeelug yàlla googee nga xam ne bokk na ca la koy maye jariñ mbindeef yi jariñ mbindeef yi yonente bi ne woon na sunu boroom du dugal mukk ab soppeem sawara kon jariñ mbindeef yi dana mus la ci sawara boo jariñee mbindeef yi yàlla sopp la waa kaw sopp la waa suuf nangul la kon day mel ne ñii wut àdduna sax ñiy wut àdduna la gënoon a gaaw ci ñoom mooy ñuy jariñ mbindeef yi la ñu man buñ ko defee rek sunu borom wàcceel leen xabul ci kaw suuf mbindeef yépp ànd ak ñoom ca ca ca lanu bëgg moo tax am na ci ñoom buur buuri àdduna yu jëkk ya buuru ba jolof sëñ Tuubaa dénkoon ko ne ko na ngay dimbali néew ji doole yi ak koo mën a dimbali te moytu tooñ moytu jàng kon loolu ñaar yooyu boo ko gisee mooy boo ko déggee mooy la ma waxoon ci njàlbeen gi mooy ñaari anam yi ñuy jariñe mbindéef xëccal ko yiw ak jañal ko lor nit ki boo ko yërëmee dimbali ko xëccal nga ko njariñ boo ko tooñut jengoo ci kawam fegal nga ko lor kon loolu moo gën a gaaw ci moo tax am na ci boroom xam-xam yi ku mas a wax ne yéemu naa ci nit ñi ni ñuy jënd jaam ñi te mënuñoo jënd gor yi ñu ngi jënd jaam ñi te jéemuñoo jënd gor yi ñu ne ko góor ñi góor yi nan lañ leen di jënde nu ñuy jënde góor yi mun leen teraanga as boo ko jariñee teral ko yaa ko moom moo tax abul fatxil bustiini ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahumu fa taalama stabaada al insaana insaanu nit ñi dee leen defal teraanga rek boo leen defalee teraanga rek moom leen loolu day mel ne moom la sëñ bay jaxatay leeral ca xasida gam doon tàggee sëñ Moodu Moustapha naan ko yaa yiw te yaa mën a yeewu asgor ba dootu fi jóg teraanga nga yeewa asgor teraanga nga yeewa asgor pinti pantanga ma parce que loolu mooy mooy asgor boo ko jariñee rek moom ko moo tax woykat boobu loolu mu wax di lu am solo saxaaba yi ci seenu ñaw ak seenu xër ci lu baax tax na dañ daan laaj yonante bi lu bari jën jëf moo gën ci jëf yi jën jëf moo ci gën yonent bi leen won yoon am na ci boo xam ne dana leen jëf yi gën ci jëf yi mooy tàbbal mbégte ci xolub jullit mbégte fexe mu bégloo ko rek ci dara loo xam ne nga wax ko ko mbaa nga defal ko ko dana ca bég nee na loolu benn jëf jenn jëf ëpp ko gënalu gënalul yàlla jëf jooju saxaaba yi moo tax dañ daan jëkkante ci di béggalante gis nga ñetti saxaaba yooyu yi gannaawaloo ga maanaam yeexamtal woon ba demuñu woon ci xareb Tabuk ba sunu boroom joxe ndigal nañ leen wan gannaaw ñoom ñëpp bu kenn leen jëflanteete ak ñoom wa ala salaasati xolli foofu ñett ñooñu ñu ay fan yu bari lu mat juróom fukki fan ñu nekk ci loolu kenn du leen tudd kenn du leen taas kuñ nuyu duñ leen du leen fay kenn du leen nuyu ba ci seen soxnay bopp yonent bi woo leen leen beru leen leen ñu nde ca loolu ay fan waaye bis bi sunu borom wàcc aaya ji wane na jéggal na leen am na koo xam ne dafa waru fasam fekk kaabu moom ca la bokkoon ma nga ca cakk dafa mujj bedd ko dem ca nit ñi fa sore fa sore sori wéet fa ndax kenn faaleetu ko kooko waru fasam ba ak ba ba ba jege ko ba mu ko jegee sax munta mënu koo muñ te dafa xaacu aw turam xaacu ca kaw yaa kaabu ab abshir bégal sunu borom wàcc na aaya ji lay jégal noonu lañ daa xiri ci di di di di di dugal mbégte ci xolub jullit te mooy jariñ ko ci loolu ñooñu ñett ñooñu la ñuy tënk seeni tur ci makka makka la ñuy tënk seeni tur muraaratu nu rabia kaabu nu malik ak xilaalu bnu umaya kon li ma bëgg a wax rek mooy saxaaba yi dañ daan jëkkante ci loolu léegi nag dafa mel ne waras na leen a roy ci lu meloo xabaaru mbégte ngay fexe ba jot ci mu wóor la ne dana bégloo sa mbokk nga dem béggal ko ci ngir jariñ ko su yor sunu borom nee na amul lu ko ëpp tuyaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na itam jullit ñi ni ñu war a mel ci bëgganteeg yërëmante ak ñeewante mooy dañuy mel na jénn jëmm rek jénn jëmm benn jëmm ju ne cër bu cay metti rek jëmm yépp a ko yëgando du am jàmm sa benn bëñ rek bu doon metti say bët mën naa bañ a nelaw nee na noonu la jullit yi war a mel ci bëgganteeg jariñante kon lu bari nga ne la jariñ mbindeef yi dox ci aajoy mbindeef yi ba muy faju ngir jariñe leen ko te di ko def ngir yàlla lu am njariñ la képp yonente bi ne woon na képp koo xam ne dox nga ci sa sa aajooy mbokk sa kem kattan ba mu faju sunu boroom dana la dëgëral bis ba nga xam ne ndëgg yépp dañuy tarxiis wala ndëgg yu bari day mel na day misaal sunu borom dana la musal ci siraat siraat siraat sunu kanam lu nekk ci sunu kanam lu nekk waxtu wu ne booy taaya yaa ngi dëggal na siraat dana ñëw wa anna siraata xaq siraat dañ koy misaal ne dafa sewe na kawar ñawe na jeesi te tooyaaba yi dong lañ koy jege te kenn du ko kenn du ko njuy wa in minkumu illa waariduha kaana rabbika xatman maqdiya siraat nag jéem a dox ci sa aajoy mbokkum jullit di ko jariñ sunu yo yonante bi nee na dana ca dana ca dana ca musle ne woon na képp ko wuññil ab jullit njàqare sunu borom dana ko wuññil njàqare ca njàqare àllaaxira yooyu nga xam ne kenn xamul sunu borom ma ngi cay ma ngi koy ma ngi koy melal ma ngay melal njàqare yooyu am bis pénc inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat nee na bis bu tar la bis bu màgg la da gis jigéen juy nàmpal doomam bu mu jàgg mu jékki-jékki sànni ko xoolal jigéen ni muy amee yërmande ci doom bu ko mën a jékki-jékki jël sànni ngir tàllatu ko loolu kenn xamul loolu nu mel sunu boroom nag waaye dimbali sa mbokkum jullit jariñ ko dana musle ci tiiti bis yooyu kon bis li muy metti metti su yoonu borom su yonente bi mu ngi ñuy xabaar yoon wu gaaw wuñ mën a jaar bu mucc ca te mooy jëriñ nit te jariñ nit lu yomb na waxtu wu ne yaa ngi jonjog ñoom waxtu wu ne yaa ngi jonjog koo xam ne am na loo ko mën a jariñe jariñ ko ca te bu ko xeeb ni ma ko waxee léegi te lépp loo cay def def ko ngir jëmm yàlla Seydina Ali dafa firi woon lay sunu borom wax ne qu anfusakum wa ahlikum naara mu ne la muy firi mooy nangeen xamal seen bopp xamal seen ñooñ lu baax lu baax mooy jariñ leen leen ñu mën a def lu baax ba bam musal leen jariñ leen ëllëg sunu boroom dem na ba xeeti topp yàlla yi jaamu yàlla yi am na ci yoo xam ne sax da dafa jël jariñ mbindeef yi ñu féete kaw ñu féete kaw ëpp tuyaaba yenn jaamu yàlla yi anas nee na dañoo mas ànd ak yonent bi ci benn tukki ñu wàcc nag wàcc foo xam ne bis booba tàngoor wa kenn mënu ko misaal bis bu mbóoya tàngooru metti lool nee na ki gën a ki gën a mën a mucc tàngoor wi ci noonu mooy ki jël mbubbam muur ko ci boppam da gis koo xam ne loxoom lay jël di ko tiimale boppam ngir ngir fegal ko jant bi nee na bis bi nag am na ci ñun ñoo xam ne dañoo woor ci koor lañ nekk am ñoo xam ne wóoruñ wóoruñ ña nga xam ne wóoruñ ñoo ëpp kattan ñoo dem ñoom di wuti ay bant ak yu mel noonu lu mën a keral nit ñi ñëw di ko defar ba mbaar ko ngir nit ci nit ñi mën caa kerlu ñoom ñooy wuti lu fas yee gëléem yi mën a lekk indi leen nee na ñoom ñoom ñoom maanaam liñ soxla lépp ñoo ñu wóorut ñoo ko doon defe ñi wooru moom teluñ dara ndax tàngoor weeg koor gu metti gi nee na yonent bi lam ca mooy dhahabal muftiruuna bil ajri al yawma tey day ñi wóorut yóbbu nañ yool bi ngir lan jariñ ngay ñi doon jariñ ña nga xam ne ñoo na ca koor ga lool nag mel waxut ne ramadan la woon waxul ne ramadan la woon ibnu abbas moom lañ tudde woon xibrul umma foo réew xeet wi sayiduna abdullahi ibnu abbas dafa am bis muy li i'tikaaf ci jàkkay yonente bi sallallahu taala wa sallam muy lixtikaaf toog na ci ay jaamu yàlla am ba ci yàgg am mbokkum jullit mu ñëw ci wetam toog nam ko gisa daal xam na ne kii ñàkkut lu ko jaaxal ibnu abbas ne ko danga mel ne danga touriste lu mu doon mu ne ko dafa yoreel diw diw daa am lu ma ko yoreel te óoma lu ma ko lu ma ko faye te mel na ne dig ba taxaw na loolu jaaxal ko loolu nee na ibnu abbas ne ko bu la soobee day man na ma ànd ak yow jéem a dem wax ak kooka ci sa mbir ba xam danaa ci man dara am déet nee na mu ne ko bu la soobee ibnu abbas dagg li'tikaaf wa solli daal la ànd ak moom nee na waa ji ne ko dangaa fàtte li nga nekkoon xanaa mooy li'tikaaf gi nee na mu ne ko fàttewuma ko de waaye dama dégg ci boroom rawdatu bii di yonent bi dama dégg mu ne képp ko dox ci aajo aajoy mbokkum jullitam mel na ne ko li'tikaaf fukki at ci sama jàkka ji muy jàkkaam ja nga xam ne jaamu fa yàlla moo féete ko jaamu yàlla ci ci faneen yeneen barab bu mu mën a doon ne ko ku def loolu itam sorel sore nga sawara lu toll ne ñetti manding manding mooy sa digg ak sawara sori na lool képp ko dox ci sa aajo jullit ibnu abbas da doon li'tikaaf ci biir jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàkka ja nga xam ne boo leexata kaafoon ci jàkka ju mën a doon bu dee foofa junni yoon la ñuy ful yool ba la ñuy ful yool ba waaye ànd ak loolu lépp mu gënal jóg ànd ak mbokkum jullit mi jariñ ko ca aajoom ji mu jaral ko dagg leexata kaafo te moom la ñu tudde woon xibrul umma foo réew xeet wi sayiduna abdullah ibn abbas radiallahu taala am na bi saxaaba toog ci yonante bi di tagg kenn ci ñoom naan moom day ku ni baaxee mosuñu koo gis bu ñu ànd moom ci tukki daal fépp fu ñu wàcc julli rek la fay nekk ak jàng alxuraan julli ak jàng alxuraan rek lay def yonente bi ne woon yonente bi ne leen bagaasam yi mu yor kan moo koy wattul ndax koy jullee ko jàng teloo ko ku ko koy wattul ba kenn du ba kenn du ko sàcc ñu ne ko xanaa ñun mu ne gëléemam gii muy war wala fas wii kan moo koy jox lum lekk ginnaaw moom telu ko ñu ne ko xanaa ñun mu ne leen kullukum xayrun la ku ne ci yéen moo ko gën kon jariñ bindeef yi am na jaamu yàlla yoo xam ne sax jariñ bindeef yi moo ko féete kaw ñàkk a jariñ bindeef mën naa xañ mën naa xañ nit ki xéwal nit ki am lum jariñe bindeef yi te jariñu leen loolu mën na koo xañ xéewal sunu borom nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na am na gaa ñoo xam ne sunu boroom la mu leen defal ci xéewal dara waralu ko lu dul ñu ciy jariñ bindeef yi buñ bu leen ca noppee jariñ rek tàggoog loola te loolu misaal mi laar na ci alquran amoon na benn dëkk bu nekk ci yaman góor gu baax nekkoon fa am amoon benn tool tool bu yaatoo yaatu bu meññ lool waaye ci mbaaxam ak sàkku tooyaa ba dafa xaaj tool bi lenn li mu may ko fuqaraaw yi ñi loxo seen loxo jotul seen gannaaw la li ci des mu téye ko nga xam na ñoom loolu seenu tool la luñ bëgg faj bu ñëwee faj ko ci ba mu faatu nag bàyyi ñetti doom doom ya nag ba ñëwee xañ foqoraaw yooyu ñooñu mu joxoon mu mayoon ca tool ba ñu xañ leen loola ngir seenu bëgg alal ñoom téye tool bi lépp joxuñ leen ca dara ba bis sax ñu dëppoo ne dañuy fexe bu buñ xëyee suba bu ñu xëyee suba teel bala boroom tool bee ñëw muy foqoraaw yooyu danañ wat watt meññeen mépp dem jaayi ko ñu diggante loolu ne bu subaa danañ xëy def noonu waaye ca guddi ga rek sunu borom loolu ñu fas rek ñàkk jariñ ñàkk njariñ googu ñu fas rek ca guddi ga sunu borom yebal mbiram mu def tool bu mel ne dóom dañoo xëy rek fekk mu ñuul kukku dara nekkatu fa kon ñàkk jariñ bi ndee fekk xàññi leen li nga leen man a jariñ dana dana xañe mooy li alquran di wax inna balawnahum kama balawna asxaabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbixina wala yastasnuun fa taafa alayha taaifum min rabbika wa hum naaimuun fa asbaxat kassarim فتنادوا مصبحين أن نغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين falammaa rawhaa qaalu falammaa rawhaa qaalu inna la daalluuna bal nahnu mahrumun la leen yóbbee loolu lépp mooy fas yéene gi ni façon yéene xañ foqara u yooyu loolu leen leen leen seen baay boobu joxoon sunu boroom yonante bi sunu boroom dafa wàcc aaya jooju di ci jox misaal di ci jox misaal saxaaba yi da leen ci jox misaal ne leen inna balaw naahum kama balaw na asxaabal janna ndax saxa ñoom ndax yéefar yi yéefar yi la doon jox misaal ne leen da leen joxoon alal nattu leen na mu nattoo woon waa ñoo ñu borom tool yooyee ndax da leen a jox alal ngir ñu dimbale yonte bi gëm ko defuñ ko nag mu nattoo leen bekkoor ba amatuñ dara kon fam jaaroon ak ñee rek la jaar ak ñii loolu lépp li ñu ciy dégge mooy xañe njariñ dana xañe xéewal xañe njariñ dana xañe dana xañe xéewal yonente bi ne woon na sallallahu alayhi wa sallam imaam imaam booba jamono booba imaam daa nekkoon koo xam ne moo moo war a ëpp njariñ ndax li ñuy nit ñi war a jariñoo lépp ci moom lañ koy indi asaka yi moom lañ koy jox nangam nangam yépp mu ne imaam ju tëj buntam nag ba borom aajo yi mënuñ koo gis ba mu jariñ leen mu ne imaam joojee sunu borom dana ko tëjal bunti kaw yi bunt asamaan yi ba moom it ay aajoom dara du ca faju loolu yonent bi sallallahu waxoon na ko kon daal nit saa bu gisee mbokkam mu loru lépp luñ ko mën a jariñee ci jaañal ko lor ja te yàlla rekk a tax wala xëccalu ko njariñ la ca la ca yàlla rekk a tax na ko na ko def bu mu ca xeeb dara jariñ bindeef yi ni mu amee solo yaa ngi koy xam ci nit ki bu romboon nit mu loru xiif ba bu lekkul faatu walla mu mar ba bu naanul faatu bu ko rombee jàll te am lu mu ko mën a jox mu lekk ba sooy wala am lu mu ko lu mu ko mën a jox mu naan bu ko ko faatoo maanaa àq ja lépp ci kawam lañ koy gàll daa mel na moo ko rey loolu kon seetaan kon foofu rek da ci xamee jariñ bindee fii ni mu amee solo ak ñàkk leen na jariñ ni mu ni mu ni mu ni mu ñàkkee solo yonente bi nee na sunu boroom am na màngasini yiw màngasini yiw ak màngasini ay waaye caabi ya caabi yiw ak caabi aye yépp da ko teg ci loxol jaam ñi loxol jaam ñi mu na nga fexe nag mu ne yow nag boo bëggee taxe na nga fexe ba bokk ci ñim teg ci seen loxo màng si caabi yiw yi waxtu wu ngay jariñ nit ñi waaye bañ a bokk ci ña yor caabi ay wa nga xam ne waxtu wu ne yaa ngi leen di lor kon loolu itam yonent bi daan na ca sonne daan na ca soññee ñu baax ñi nit ñu baax ñi mosuñoo dañ di jéem a jariñ mbindeef yi seen kem kàttan ci misaal sayiduna Musa sayiduna Musa alayhi salaam gis ngeen ba mu rombee jóge Misra jëm Madyana romb ñaare doomi Shuayb yu jigéen ya ñu taxaw ca xaw a sori bi booba góor ñaa ngay root ak ñu am doole ñoom mënuñoo root ndax amuñu doole Musa ñaw ba ci ñoom laaj leen maa xatbukuma qaalataa la nasqi xatta yusdira riaau wa abuna cheykhun karim cheykhun kabir wa abuna cheykhun kabir Moussa na leen lu xew ba ngeen taxaw fii ñu ne ko ñunkat kat bala ñoo mën a root rek ñee danañ danañ root ba noppi ngir seen sunu ñàkk doole te sunu bàyyi mag la mu màggat amatul doole fa saqa lahuma summa tawalla illa dhill mu daal mu daal leen di wutal ndox ñoom ñaar ñooñu te xamu leen xamu leen ñaanuñ ko moom wutal leen ndox moom moo xam ne am na lañ soxla mu dem ba ca ñoom laaj leen ñu ne ko nangam lañ soxla mu fajal leen soxla sa delsi nag ca kër ga toog sant boromam ci yiw wi mu ko defal rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yiwoo moy lan ne ko li nga ma jox ci yiw aajo woon naa ko yiwoo mooy lan lam ko may mu mën a jariñ bindeef loolu la jàppe yiw ba cay sant boroomam moom sayyidna Musa alayhi salaam kon yonent yi yu mel noonu kon soxlawuñ jërul ngay soxla mbindeef di la laaj lépp loo xam ne soxla nga ko nga mën ko caa jariñ demal fekk ko fa mu nekk jariñ ko ca nii ko sayyiduna Musa alayhi salaam defe woon moo tax Abdullah ibnu Jaafar rahimahullah ne woon na ab tab dëgg du koo xam ne day bàyyi ba ñu laaj ko mosoo soo ko joxe ab tab dëgg day xam ne kii soxla na mu dem fajal ko soxlaam ngir ndax li ñuy wax zullul masala laaj dafa am toroxtaange dafa am suufe gu nekk ci laaj ngir fegal ko nit ki nag moo tax bu soxlaa rek demal fajal ko soxlaam sayidna yusuf alayhi salaam gis nga bañ ko tëjee ca kaso ba lu mën a jariñ ñam nekkal ca kaso ba mu ngi leen ko doon jariñ ba gis nga ñaar ca ñoom ba ñu géntee gént ka ñëw ngir mu fiirul fiirul leen ko daf dañ na ko inna naraka minal muhsinin ngir lu baax la mu doon def ca ñoom ak jariñ ga mu leen doon jariñ kon yonent yi doy nañu sëkk misaal ci jëriñ bindéef yi sayiduna ibrahim abu abul ambiya ku siiwoon la ci jariñe ak mën a teral gan soxlawul sax mu lay xam gis nga ni ko alquran natle hal ataka xadiisu dayfi ibrahima almukramin id daxaluu alayhi fa qaalu salaaman qaala salaamun qawmun munkarun fa raaga ila ahlihi fa jaa bi ajlin samin fa qarabahu ilayhim qaala alaa taakuluun fa awjasa minhum xiifatan qaalu laa taqaalu laa taxaf wa basharuhu bi gulaamin alim bi gulaamin alim ibrahim dafa am ñoo xam ne melaw waxambaane lañ amee woon fekk ay malaaka lañ xamu leen mosu leen a gis waaye bañ agsee rek fa saasa dafa dem wàjj am xar ñëw tegal leen xoolal njariñ loolu ak mën teral ak mën a jariñ nit ci ñoo xam ne xamoo leen mosoo leen a gis kon te ñooñu nag ñooy royukaay yi sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam doy na sëkk misaal ci bari njariñ bari njariñ gis nga bis bañ ko jëkkee yónni mu tiit mu tiit ndax ca la jëkk gise Seydina Jibril malaaka ba ñëw naan zammilu nii zammilu nii sàng leen ma sàng leen ma ba tàmbalee tiit ci boppam soxna Xadija def na ko jërul ngay tiit wallahi laa yuxsika abada sa borom du la gàcceel mukk lam ko limal ne ko mooy tee yàlla teg la loolu lam ko limal mooy jariñ gi muy jariñ bindeef yi jariñ gi muy jariñ def yi dong la ko limal ne ko ni nga mën a jokke ak bokk ni nga mën a yanul nit lu mënta yanul boppam wa taxmilul kalla ni nga ko mëne ni nga mëne terale gan ni nga mëne nangam limal ko yu baree bari kon sa borom du la teg mukk gàcce yàlla du la seetaan mukk kon jariñ bindeef yi dana dana de ci gàccek àdduna di musle ci gàcce gàccek alaxira yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga sunu boroom ba mu koy wax ci alquran di wax ni mu fonke jullit ñi ak ni mu leen amale njariñ azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufur rahim lépp lu jullit ñi nekk ci coono day diis ci moom moom yonent bi day diis ci moom gànn xër lool ci jullit ñi xër lool ci ñu am ñu aw yoonu njariñ njariñu àdduna ak alaxira moo tax xarisun aleykum moo xam ne dañ koy firi ne ay ala hidayatikum wa wasula nafa dunyawi wal uxrawi ilaykum ñoom jullit yi ku xër la ci njariñul àdduna ak alaxira agsi ci yéen yéen jullit moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mas a mën a jariñ ab jullit rek yonente bi jariñ na ko jariñ na ko ab jullit lépp lu mas a mën a jariñ ab jullit na ko jullit Seydina Ibnu Abbas nee na dama mas war yonent bi togg ma ma war ci gën na ci gannaawam nee na waaye diggante boobu rek mu ngi xalaat lan la ma mën a jariñe ku bari woon jariñ ne ko yaa xulaam maa ngi lay xamal baat yoo xam ne boo ko wattoo sunu boroom dana la wattu dana la aar baat yoo xam ne boo ko wattoo sunu boroom dana na ci sa kanam di la musal di la aar baat yi mooy lan ne ko boo dee ñaan nanga ñaan yàlla boo dee dimbandikoo dimbandikool ci yàlla maanaam doy loolu yàlla te wéeru ci moom nanga xam ne xeet wi nation bépp bu ñu maase woon bëgg laa jariñ ci loo xam ne yàlla ànduñ ca yàlla àndu ca mënuñ la caa jariñ mënaluñ la dara ñoom ñépp bu bëgg laa lor ci loo xam ne yàlla ànduñ ca yàlla àndu ca la caa lor rufiatil aqlaamu wa jafati suhuf kon njariñ yooyu njariñ yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu masa a toll mi ngi koy jéem a jariñ nit moo gënoon a tabe ñëpp gën a yéwén ñëpp gën a baax ñëpp Ibnu Abbas nee na tabeeg yonent bi kenn mësu koo mën a takk waaye ci ramadan nag ci weeru koor la la da gën a tabe muy weer wii nu nekk saxaaba yi ñoom ñëpp yoon woowu la jaaroon kenn ku ne ci ñoom loo mën a jariñ bindeef sax jariñ ko ko am na ci loo xam ne sax mën na laa lor li ñuy wax isaar man ngaa jariñ sa mbokk sax loru yow donte da ngay loru loolu ñoom àggoon nañ ca ibnu omar nee na dafa am ci saxaaba yi ku mës a yónnee mbokkam ku mës a yónnee mbokkam bopp xar bopp xar bu ñor xelam na ci moom rek mu yénnee ko ngir mu jariñoo ko nee na kooka ba mu jotee ca bopp ba dafa ne diw xam naa diwoo ma ko gën a soxla moo ko njabootam naa ko ko yónnee nee daldi ko yónnee kooka kooka ba mu ca jotee waxaat la kooka waxoon diwa ma ko gën a soxla naa ko ko yónnee mu jariñoo ko nee na ñu koy joxulante di ko joxulante ba mu dellusiwaat ci ku jëkk ka bopp xar ba saxaaba yi noonu la ñu meloon ci jéem a jariñante soxna Aïcha radiallahu taala anha am na bis boo xam ne dafa woor dafa yendoo koor am yalwaankat bu ñëw ci kër gi di yalwaan mu ne mbindaan bi jox ko doge itu mburu wi fi nekkoon te fekk booba lool dong nga fa nekk ci lu mu war a doge lu mu war a doge mbindaan ma ne ko loolu doo nga fi nekk de laneen looy dégg newu fi de mu ne ko jox ko ko nee na mu yëkkati ko jox ko ba ngoon daataan jot sunu boroom fayee ko ñu indil ko ci xéewal loo xam ne kenn xamul lu mu toll saxaaba yooyu nag ak seen doxin yooyu seen mën a jariñante googu murid yépp war lan ci war lan leen di leen ci roy ndax sëñ Tuubaa ne woon na murid yi saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine ñooy seeni baay ci diine ñoom ngeen war a roy loolu ba mu leen ko wax booba mooy njaal beenug yoonu murit caddo yi sonal leen di leen dóor di leen génn seeni kër di leen di nangu seeni alal ñu ñëw ci sëñ Tuubaa ko ko jàmbat sëñ bi na leen saxaaba yi daj nañ lu raw a loolu te deltuwuñ gannaaw génn nañ leen seeni kër tuur nañ seeni deret nangu seeni alal te ñoom nag ñooy seeni baay ci diine kon melaw saxaaba ya moom ci boppam nag moom sëñ tubaa moom sëñ tubaa ni mu meloon ci mën a jariñ bindéef yi man nga ne sëñ bi dundam gépp da koo jeexal moom ci jariñ bindéef yi dundam dundam gépp demoon na bay ñaan yàlla mu defal ko njariñ li niir am niir akub taw njariñ yi nu am nga xam ne bu ñuy wàcc ñépp lañuy jariñ njariñ loola la sëñ tubaa ñaan borooma mu defal ko ko gis nga ca xasiid ak matlabul fawzayni waj'al yamini ka saxaabin fi saxaa maymunatan fi shiddatin wa fi raxaa bu neexee bu naqaree lépp na nga ma def ma doon njariñ ma mel na njariñul niir noonu la ko jaane ci xas rek tuxfatu bi jaahi mikaila habli niama wa nafeejaal wa nafeejaal mithla gaythin karama sama njariñ na nga ko def mel na taw kon sunu boroom nag defal na ko loolo nee na sunu borom defal na ko njariñ yooyu mu doon ñaan damm kitaabati li amaali saxaab sixaab man qaadi bila adan nafa saxaab sëñ Tuubaa ni mu ni ko sunu borom may sunu borom da koo defal ndimbal wax na ko sunu boroom dimbali na ma mbindeef yépp topp topp nañu ma xoolal jooju doole waaye ànd ak loolu lépp mu ne borom njariñ dong lay doon de nga xam ne jenn lar jenn lor ci du ci dugg ذا نفع بلا ضر والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر njariñam yu bari yim jariñ bindeef yi bokk na ca te téere yi mu bind ci wàllu xam-xam téere bind ci wàllu xam-xam te day wane ne njariñ yi ci téere yi ñépp ci yem kuy soo ko tàmbalim njàngab njàng ak ku jàng ba noppi ci yem wa yastawi mubtadiun wa muntahi fi nafaihi wa xayruhu la yantahi am na ci leetaram yi mu doon bind leetar boo xam ne daf te def cee ñaan te benn téere bu mu taalif ñaan yàlla mu jariñ ca Ibrahim maam Cerno lay wax jariñ ca jariñ nanga jariñ képp koo xam ne jàng na ci samay téere na ko jariñ mu jariñu ca jariñ loo xam ne mooy féete kaw lépp lu jàngkat ak jàngalekat jariñoo ci wàllu xam ay dénkaaneem fu mu toll da cay digal taalibe yi ñu am njariñ ñu am njariñ am na boo xam ne dafa ne yaa ayuhal ixwaanu yaa ayuhal ixwaanu haakum nafaa bi gayra durrin jalaban wa dafaa kon lépp léppi sëñ tubaa njariñ la it yi mu bind dara ëpp ko njariñ ndax li ëppal njariñ nit mooy digganteem ak boroomam dangay jël génn xasida muy jaalibatul maraaxib muy nuuru daaray ni jàng ko fa saasa da ngay yëg ne am na am na loo dolliku ci sa borom loo xam ne moom yaa danga ko xamal sa bopp te loolu day wéy ba faw njariñ yooyu yëpp sëñ Tuubaa bàyyi ko fi ba noppi day ñaan yàlla it mu jariñ ca gis nga xasida ak jaalibatu muy ñaan yàlla ne ko na nga ko def muy njariñul ña dëkk ca teeru ya ak ña fa dëkkul muy njariñul ñëpp wajalhu nafaan li dawil ansaari wa xayrihim yaa waahibal ansaari bu dee ci wàllu joxe nag njariñ li mu daa yëkkati di ko jariñ bindeef yi moom kenn xamul lu mu toll moom sëriñ bi sëñ Bachir mi nga xam ne shaahidu ayaan la nett la ci minelu baaxil xadim ne sëñ Tuubaa képp ku mos xam ñu koy askanal ci wilaaya walla ci xam-xam day day jéem a xam kooka di yëkkati alal yu bari di ko yónnee ngir jariñ ko loolu moom waxtu wone nee na ma ca gis nga nam jëflanteeg yuusufu nabahaani nabahaani ab naar la woon dëkk libam sëñ Tuubaa ci kashfu lu ko boroomu xamal mu yëg ni mi ngi ci xat-xat ci wàllu alal moom Yuusufu Nabahaani moom sëñ bi sàkk ay ndaw jox leen alal ju baree bari ñu yut ko ko ngir mu dimbali ko ko ci la defoon ci la defoon xasidaam googu nga xam ne waaye yooyu nga xam ne ñetti bayit ya ñetti bayit la wax ca ne inna mraan faatahu almuxtaaru min mudarin wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuunu ki nga xam ne daal yonent bi raw na ko sëñ tubaa raw ko kooku nag neexut dimbali nag kon Yusuf Nabahani boroom xam-xam la woon bu mag a mag mag lim bind ci téere ëpp na juróom fukki téere lim taalif jamonoy 1932 la fi jógee jamononte naag sëñ Tuubaa kon ni Ibnu Abbas waxoon ne yonent bi ku tabe waaye ci ramadaan la gën a tabe sëñ Tuubaa sëñ Bachiru seere na loolu nee na Ramadan moom weer yëpp yemoon ci moom ak bis yi waaye ramadaan da cee rawoon nag weeru koor bu ci masaan dugg moom day mel ne. xeeti jaamu yàlla yi na nawaafil yi sax joxe la cay jiital amal njariñ nit ñi lay jiital neex a gis lool ak lim daa jafe-jafe daa dégg ñu naan la léeg-léeg ku am yitte sax dana bu ramadaan di jub dana na bàyyi ba ramadaan teeru moo soog ko wax sëñ bi ndax luñ ko ca wax mu faj ko kon njariñam noonu la noonu la noonu la bare woon alaala yi wax na ci nafaatul miskiye ne sëñ tubaa ci njariñam yu bari ak xér ku mu xéroon ci njariñ nit daanaa teg sama bët ganam yi mu am muy jëlal boppam ñam yi di leen ko yóbbul moom ci boppam ak di leen taalal niitukaay yi nee na loolu teg na ci bëtam loolu lépp di wane njariñ njariñ lu bari gis nga nim fonke woon nit ak bu fonk weeru koor abdullahi ibnu ay ay moo ko daan naafeelal ca njaareem nee na bu sëñ Bachiru nee na bu weeru koor wi ñëwee da koy toppatoo di xool ab dundam di xool nekkinam weeru koor yi du tari mukk lu dul bu fekk ne ko jox na ko ci alal ab yóbbal yoo xam ne bu delloo mën na caa dund ren ba déen gis nga ne moo doon gannaaw bi sajjaat ku ñu wax sajjaat moo fa daan la gannaaw bi jawaat jawaat moom nun ñi fekk nañ ko xam nañ ko ci njaareem sëñ Tuubaa njariñam yemalewu ko sax ci ci jullit ñi wala murit yi noon noon yi nga xam ne teg nañ ko lu ne génne koy këram sax jariñ na leen moom sëñ bi jariñ na leen te sëñ bi kon moo ne ci sunu kanam mooy sunu xudwa mooy sunu royukaay kon buñ gisee nii muy jëriñal mbindeef yi kenn ku ne ci noonu war naa xam ne jëriñ mbindeef yi lum ca man rek war na ko caa jéem liggéeyale ko sëriñ bi liggéeyale ko sëriñ bi gis nga 1926 France ba ñu amee jafe-jafe xaalis di yónnee di yónnee di sàkku ndimbal sëñ Tuubaa mablax bu am solo laykati jox leen nga xam ne kenn kenn koo xam ne joxe na lu toll noona ci kenn nit amut ci noonu kuy jariñ sab noonu nag jullit ñi danga leen a jëllale ak ak ak nga teg ca nag ñuy jariñu ci barkeem gannaawam li imaamu Shafii waxoon qad maata qawmun wa ma maatat makaarimuhum ñaata ñooy jariñu ci barkeem Sëñ Tuubaa yi ñaata kenn xamul lu ñu toll moo tax mu ne barakati barakatun la tansarim tawsiati kamadadi la tanxarim njariñam yu bari yooyu rek moo tax am na ci naari gànnaar yi koo xam ne def na ko kafal baxra juudan an yuxaaki an yuxaakiika saybuhu wa yakfika buxulan an tushabbaha bil matar ne ko ab taw buñ la ko buñ ko nuroo léegi yow ci njariñ tagg nañ ko doy na ko aw tagg ne ko waaye aw niir buñ ko nuroo buñ la nuroo aw niir ci njariñ loolu doy na la ak nay yow ndax yaa gën yaa ëpp njariñ aw niir moom Sëñ Tuubaa noonu la daa soñña murit yi nag ci ñuy amal njariñ seeni mbokk ñuy amal njariñ bindeef yi sëñ tubaa dem ne ba àgg ci ne laa tajaalan jawaaba haati xayra haak nee na ku leen a indi moom bu ko tontu lu dul am lu dul am rek kon noonu la bëggoon ñu jariñ gis nga ca taysiru rahmaan ma nga cay dénkaane ne wal tajaalan saayaka nafaal muslimin say yitte say jëf na ko jëmee ci luy jariñ bindeef yi ak luy jariñ jullit yi ba mu demee ci géej ga am na dénkaane bu mu bindoon dénk ko murit yépp na leen na ngeen di jariñ seenu njaboot ñoo ca jiitu na ngeen di jariñ néew ji doole yi ci li leen yàlla jox dee leen leen ca jariñ na ngeen di baril di sarxe na ngeen di baril di ñaan yàlla seen mbokkum jullit saa bu ñëwee ci yéen di sàkku ci yéen dimbal dimbali leen ko lu ngeen man kon jariñ bindeef yi sëñ Tuubaa daana ca soññee lu baree bare bari gis nga nim fonke njariñ bindeef yi ba muy lim yi nga xam ne booy sàkku xam-xam nee na na nga la tax a jóg yow mi sàkku xam-xam sëñ Tuubaa nee na sëy yéene nay ñeent yi waaye ñeent ya ñaareel ba lam ko def mooy fas ci yéene jariñ bindeef yi bu jëkk bi mooy na nga fas yéene génn ci riir te yàlla tax ñaareel ba nga fas yéene ca jariñ bi bindeef yi awwaluha awwaluha alxuruju min dalaali wasaani nafu xalqi dil jalaali kon jariñ bindeef yi lu ko ñoroon la moo tax Seex Sidiya ne sikkam daal mooy sax ci jaamu yàlla ak jariñ mbindeef yi subankoon wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaa'ihi jariñ mbindeef yi ñi ñëw gannaaw sëñ Tuubaa di murit di kilifa yoon woowu lañu jaar gis nga Cheikh Abdou Lahad Mbacké gis nga ci biir këram gi radiyallahu amoon na fa mbaar moo xam ne ay néew ji doole ñu wéri di sax nekkoon nañ fa léegi fay jaar sax ñuy waxtu mu yoral leen seen lépp loolu defe naa boo doon wër àdduna tey kuy jariñañ ñoonu mbindeef yi ndax da nga ko gis te njàngalem sëñ Tuubaa rek la topp ba def ba def lu mel noonu nit ñu baax ñëpp ci loolu lañ ci loolu lañ jaar ba ci ni ma ko waxee léegi xalifaam bi fi nekk Cheikh Mouhamadoul Mountakha ni ma waxee léegi ne moom nangu nanguwuti tudde boppam xalifa waaye xulaamul xadim xulaamul xadim lay wooyee boppam bokk na ci njariñam discours rek yi muy sànni di ko sànni mbindeef yi nga xam ne day xër ci nit ñi jariñoo ko demoon na ba àgg ci di wax ne bu ma mënoon a génne li ci sama biir dama koy génne jox leen ngeen mel na man maanaam xeeroon na ci jariñeen bindeef yi noonu nga teg ca nag li mu jariñ bindeef yi ci wàllu xam-xam rek doy na ci sëkk mu jàmmax bee nga xam ne nit ki lu ko gën a ëppal njariñ ci jàngal ko daanaka amut fi mu ne nii ay téeméeri téeméeri gone nga fa ne ca biir mu yoro leen seen lépp te loolu ak yeneen yi nga xam ne buñ ko doon lim fi la ñuy fi la ñuy fanaan bu yàggul rek dégg ngeen benn benn xalifa ci xolofaa yi ci biir réew mi moo waxal boppam ñépp di ko dégg mu ne ba ma toogee ci xilaafa gi sëñ Muntaqa nangami million la ma yónnee ak nangami tonne ci dund teg ca ne te booba ba dara nekku ci loolu moo ko waxal boppam ñépp di ko dégg ab xalif général la te loolu bu ko waxatoon njabootam gi ci biir këram sax yëguñu woon loolu bu ko waxatoon kenn du ko xam loolu nag noonu la koy defee ci lu kenn yëg ak ci li ci li ñuy yëg njariñam yemale ko ci réew mi gis nga Maroc la fa xewoon ci jéeya Turc la fa xewoon som yu am solo lay lay génnee yónnee leen loolu lépp li ma ciy jublu rek mooy ndax loolu murit gi la ko defal tedd nga ak yoonu murit lay wane la xalifa far waxoon dafa am ci ñu bokkul ci diine ji ñu mu yónnee woon teraanga yu baree baree bari bañ koo laajee def ne dama bëgg mu xam teddug lislaam kon li sëñ Muntaxa di def lépp teddug yoonu murit ak yëkkatikum rek lay wane kon ñëpp la ko defal kon daal bu ñuy tënk sëñ Amdi Moustapha képp ku bëgg yàlla di ko dimbali jariñ mbindeef yi li muy jariñ dëgg-dëgg mooy képp ku bëgg yàlla di ko dimbali ci aajoom bokk na ci sabab ya nay dox ci aajoy mbindeef yi di leen jariñ saa boo ko defee rek yàlla dimbali la yonent bi ne woon inna allaha fi awni al abdi maa kaana al abdu fi awni axi yàlla mi ngi ci dimbali ab jaamam nekk ak moom di ko dimbali feek jaam bi mi ngi ci jéem a dimbali bokkam li fekk yaa ngi ci kon aaja yoo am rek doy na ca sëkk nga sababloo ko jéem a dimbali sa mbokkum jullit ak jéem koo jariñ boo ko defee rek sunu borom dana la fajal sa aaj ndax sunu borom nag bi yadihi malakuutu malakuutu kulli shay'in bi yadihi malakuutu kulli shay'in lépp ngi ci loxol yàlla loo bëgg rek yàlla am na ko kon jariñ bindeef yi dana dana dana la fajal say aaju ci àdduna bu dee àllaaxira nag moom mooy yoonu taxe doy na ca sëkk lam wax ca suuratul insaan yiw yam fa wax fa waqaahum allahu charra dalika alyawm wa laqaahum nadaratan wa surura topp ko topp ko ba ci wa ida raayta thamma raayta naiman wa mulkan kabira mu ne ñan ña dugg aljanna sunu borom da leen defal xéewal yu jeex xéewal yu dul jeex aljana soonu ci seeni lal ak seeni njege ab sedd du leen sadal sonal aw tàngoor du leen sonal wa daaniyatan alayhim zilaaluha wa dullilat qutufuha tadlila ker yi àjjan leen keral te bépp meññet muñ soxla dañuy yootu seen loxo rek watt benn coono duñ ko ci am ay waxambaane yu yéemu cib taar wel daanu mu la doon wër leen di leen servi mu ne foofa daal boo fa demee nguur dëgg foofa la nekk nguur dëgg loolu lépp nag daf ne daf ne dañ leen koo faye inna haada kaana lakum jazaan wa kaana saayukum mashkura dañ leen koo fayee ndax seen jëf yàlla gërëm na ko jëf ja lu mu doon mooy lam wax ca njaal biin ga wa yutcimuuna altaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutcimukum li wajhi llah laa nuridu minkum jazaan wala jariñ bindeef yi rek moo leen may kon jariñ bindeef dana maye tex àdduna di maye tex fi may jeexale sa ñam di nag kon tàkk mooy jéem a jariñ jéem a jariñ murit rawatina waxambaane yi ñu gën a seeni pas-pas gën a téye seeni pas-pas gën a fexe gën a am kilifa sëñ Tuubaa ne woon na mu jëg jamono dana ñëw ci kanam ngelawal riddi dana ñëw ci kanam ngelawal riddi bu ñëwee ndaañ sax du leen fa bàyyi garab yi ëpp doole mën na leen a yëpp yóbbu loolu nag mooy pas-pas yi la ci jublu yonent bi noonu la ko euh, dénke woon saxaaba yi addu alayha bin nawaajis leen waxoon seeni pas-pas na ngeen ko ŋànk ci seeni dégéej bu ko kenn mën a génne kon loolu itam noo leen ko yëngu yi bari na coow yi bari na te lan lu fi am lu fi musta am nag amut fi ne da ngay gis yëngu yi àdduna yi coow yi nga defee ne musta am lépp a mas a am ay kilifa nekkoon fi di ko gise nii ñu koy gise li li li ci dolli ko rek mooy bu jëkk wax ñu dégg la daa yombutoon génn nañu gis la yombutoon bind ñu liir ko yombutoon léegi nag kenn ku ne yaa ngi sab rajo ci sa poos boo waxee bu la neexee ñëpp dégg la léegi yaa ngi ak sa télévision ci sa poste bu la nooxee ñëpp gis la léegi yaa ngi ak sa journal ci sa poste bu la nooxee ñëpp bind ñëpp liir ko léegi léegi foofu danga la wute gi am waaye lu fi amut moom amutoon yëngu yoo fa gis rek yu ko raw yu ni mel ba yu ko raw amoon na kon lu ci jar lu ci jar sàggane suñuy pas-pas new fi kon loolu itam ngir jéem leen a jariñ maa ngi koy di leen jariñit ci laabirin ngeen gën a sàmm war mooy Tuubaa rawatina ndaw ñi nañ gën a sàmm war mooy tuuba lu am worma la te sëñ tuuba wax na ko gis nga ca duwaawul kabir mu naan yàlla indi nga ma ci suuf si nga ma tànnal ma sañc fa ñaari kër tuuba ak daaru salaam tuuba sëñ móor xari busa rahimahullah wa radiya anhu nettali na ne sëñ tuuba nee na ko sunu borom tuubaa dafa bokkoon ci pàkk yàlla tànn pàkk yàlla tànn la tuuba bokk nee na nit yàlla yépp nag xam loolu daw wuti ko ngir bëgg a jot ci pàkk bi nee na ba coow la baree sunu borom tànn loo tuubaa ne ko tànnal ci diggante gaa ji nee na tuubaa tànn ma tànn ma may borom tuubaa loolu sëñ Mor Xarit bu sa ko ne sëñ tuubaa ko wax kon sëñ Bachir nee na ci minan sëñ tuubaa nee na li tax tuubaa ak daaru salaam gënal ma yudul ñoom mooy xuloo su niyët yi ba ma leen di sanc sama yéene dafa sell dem ma fa ngir dabuy cosaan wala bayukaay wala sàmmukaay wa innama hiya li ibadatillahi taala an idnin minhu waxtiyaar jaamu yàlla dong ma fa yóbbu ci loo xam ne ndigalam la akuk tànnam moo tax mu koy mu koy mu koy moomale boppam fu mu toll tuubaa ilaahi ilaa tuubaaya fu mu masa toll di ñaan yàlla mu mu mu delloo si ko tuubaa tuubaaya la wax sama tuubaa moo kon dëgg-dëgg mooy borom tuubaa azka salaatin minhu jàll bi salaam tutibu li tuubaaya maa daari salaam gis nga fu mu masa nekk rek mi ngi mi ngi kon nañ ci moo tax wormaal dëkk bi wor ma ja day dellu ci sëñ Tuubaa moo tax gis nga am na yëngu yu fi amoon gone yi génn sëñ taxa mu joxee ndigal jumaa ji lañ yéene dafa ne sëriñ bi nee na ngeen dellu ca kër ya wormaale ko sëriñ bi wormaale ko sëriñ bi noonu la ko waxee kon wormaal Tuubaa mooy wormal si loolu itam ngir laabiire jariñ leen yéen te te te sëñ Tuubaa nag nee na Tuubaa képp ko sàmm worma ji képp ko sàmm worma ji sa aljanna lay doon aljanna juñ jiital mu la yóbbu ca aljanna ja ja ñépp bëgg a dem waaye képp ko xotti war ji nag ab pakk lay doon pakk buy dox sa digg ak aljanay adduna ak aljanay alaaxira wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi kon nañ gën a sàmm war ma ju baax noo ngi jeexal nag santaat waa daayira muqaddamatul xidma di leen di ñaan sunu boroom gën a barkeel daayira bi na mu barkeele turandoom xasida ka xasida ga di muqaddamatul xidma sëñ Bachiru nee na ci minan sëñ Tuubaa nee nañ na nee na ma ci kàddoom nangu guñ ko nangu moo sabab yoonu géej gi muy muqaddamatul xidma kon barkeel lu barkeel la mu nekk ni'matun fii tayyi ma kon barke boobu yan leen fekk ci daayira bi jumaa ji ñëpp ngeen fi nekkal te jumaa ji Cheikh Mourul Fadal lam ci waxoon doy na sëkk nee na bañ ko tàmbalee wax na ko ñëpp di ko dégg déglu naa ko nee bañ tàmbalee jumaa ji mu ne ca carrière ba dafa yónnee ci sëñ tubaa ndaw bañ fa amee juróom benn fan la yónnee ci sëñ tubaa ndaw ne ko maa nga ci liggéey bi nee na sëñ tubaa woolu mu ma ñëw mu ne ma nee na sëñ tubaa ma ñëw mu ne ma danga ma daa wax ne danga ma bëgg liggéeyal liggéey baa ngi noonu liggéey la boo xam ne yéen doonuma ci dara man doonuma ci dara yéen ñii doonu leen ci dara yàllaa gi yonent bi ñoo ko moom muy jumaa ji yàlla ak yonente bi ko moom te liggéey la boo xam ne dana sotti coleet te dara mënu koo fànq noonu la ko wax la ko ca tegal dara mënu koo fànq ne ko demal nekk ca def ca loo man ak loo mënut kuy ñëw na la ca fekk kuy dem na la ca bàyyi dara mënu koo tee àgg ñaar yooyu la ko wax dara mënu koo fanq dara mënu ko tee àgg ndax yàlla ak yonente bee ko moom seenum seenub liggéey la lii ñu fiy def lépp nag muqaddamatul xidma di ko def day dugg ci biir àtte boobu yàlla lañ koy defal yonente bi lañ koy defal kon ñëpp ci war a jàpp seen kam kàttan noo ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëñ Abo daa mel ne liñ doon séentu ci waxtaan wi yëpp amee nañ ci lu kawe njort demee ñi doon diglu waxtaan wi ni ma ko waxee woon ci njëlbeen xamee xam nañ bu baax lan mooy jariñ mbindeef yi waaye xam nañ solo si nga xamante ne am na ko doyoon na sëkk ci ñu wax ne jariñ mbindeef yi am na solo mooy am na njariñ mooy ku jariñ mbindeef yi yàlla yàlla di la jariñ maanaam ku ne ci ku ne ci liy jariñ mbindeef yi yàlla mii borom mbindeef yi woo say mbir yow te ku yàlla woo say mbir sa lépp baax sa lépp jàkk àdduna ak alaaxira loolu yonte bi moo ko wax alayhi salaatu wasalaam kon loolu doyoon na sëkk rek ñu ne jariñ mbindeef yi am na solo maanaam point mooy tomb bu tomb bu tomb bu njëkk bi te loola xadis bi nga xam ne wax nga ko ci gannaaw ma jaalaat yi eh, leeral na ko te mooy ku nekk ci yitte yi mbindeef yi di leen dimbale yàlla mi bind mbindeef yi nekk ci yow bokk na ci li doyoon sëkk ci ñu xam ne rek lu am njariñ la lu mënta ñàkk mooy day tax yàlla bëgg la ndax yonent bi salaam moo wax ne jaam ñi mbindeef yi ñooy njabootuk yàlla ki gënal yàlla ci mbindeef yi nag mooy ki leen ëppal njariñ ci ci njabootu yàlla gi ci yàlla njabootam gi mooy mbindeef yi mbindeef yi nga xam ne moom la mbindeef yi nag kenn génnu ci mooy mooy ñi nga xamante ne ñoom la yàlla bind loolu tax leeral na ko ci li Sëñ Tuubaa wax ci nahjul qadaayil xaaj ci wax ne na nga sàmm ci bépp mbindeefum yàlla àq yàlla mi ko bind wa raaci fii kulli xalqin xaqa man te loolu Sëñ Tuubaa waxu ko rek yam ci waaye da koo jëmmal da koo jëmmal ci anam yépp ngi nga ba muy wax ba muy ñaan yàlla daa daa daa ñaan irham jami alwara la wax alwara nag lépp lu dul yàlla mi bind jaam ñi rek day dugg ci biir alwara ñëpp dañ ciy dugg kon bokk na ci lii lii tax nit ki mën a jariñ mbindéef fi mooy mu leen ñaanal ñaanal mbindéef yi ñaanal jaami yàlla yi loolu ci li leen mën a jariñ la bokk ndax nit ñi dañ jàpp na jariñ nit ñi mooy rek nga def loo xamante ne lu ñu gis la waaye nit ñi mën nga leen a jariñ maanawiyan te mooy nga leen di ñaanal ëmbal leen yërmande ëmbal leen jàmm ci sa bopp fexe ba kenn du loroo ci yow loolu ci li nit ki mën a jariñ mbindéef yi ci la bokk sin boo ci biir waxtaan wi boo seetloo wax na atte yi nga xamante ne jariñ mbindéef am na ko wax na atte bi atte yi nga xamante ne am na ko ndax léegi dana nekk lu war ndax leeral na ne ku war a jariñ mbindéef koo xamante ne njariñam daa sa loxo nga seetaan ko ba mu loru te jariñu woo ko kooku na nga xam ne def nga lu yàlla tere ndax lu juddoo ca lor jooja rek ci sa kaw lay këpp yow mi nga xam ne yaa ko ñàkk a jariñ kon foofa jariñ mi defi waajib la fa war warteef la fa boo xam ni ki da ko war def yeneen yi ci des yëpp nag mën naa nekk darajey man duub wala ngëneel mooy lu ñu lu ñu sopp wala loo xam ne def ko rek lu baax la yàlla ci alxuraan eh, day mel ne catégoriser na ko maanaam indil na ko ay darajaat yoo xam ne day mel ne foofu nga war a eh, njëkkee booy jariñ mbindeef yi te aaya bi wàcc ci suurtu ci eh, suurtu nuur te wàccoon ci sidna Abu Bakrin day mel da koy feeñal mooy wala yaatali ulul fadli minkum wa saati an yutu ulul qurba wal wal masakin wal muhajirina fi sabilillahi wal yaafu wal yasfahu daane ala tuhibbuna an yaxfirallah loolu mooy loolu mooy la nga cay jariñoo day mel ne da koy catégoriser mooy day day waneñ fi nga war a tàmbalee booy jëriñ bi ndefi na nga ko tàmbalee ci sa ci ñi nga xam ne ñoo la gën a jege mooy ulul qurba boo noppee nga teg ci ña ca war a tege mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a yitte woo nga nga jariñ leen mooy wal masaakin waaye doo xaar ba ñëw di la laaj ndax day mel ne daraja yi mu am mooy ki nga xamante ne day dem ci mbindeef yi xool di di di gëstu ñoom seen yitte mu fajal leen ko te loola li koy wane mooy xisab sidna bi mu bi mu feeñal mooy ba xaarul ba ba jigéen ñi ñëw ci moom ngir kaay ñu rootal ñu daa xam ne ñu yitte woo lañ mu dem ci ñoom leen loola mooy daraja ju jëkk ji daraja ñaareel ji mooy xaar ñi nga xamante ne dañoo am yitte ñëw wax la ko nga nga nga nga saafara ko daraje ñetteel ji nag mooy wala ayaasu billaah mooy ki nga xamante ne moom demul ci ki si yittewoo ñi yittewoo ñëw nañ ci moom fajalu leen seen soxla fajalu leen seen soxla kooku mooy ki ci yées mooy daraja ju daraja ju mujj ji kon am na ay daraja yoo xamante ne feeñ ne ci biir waxtaan wi ne am ki nga xam ne mooy ki gën ci ñuy jariñ mi dee fi mooy kii dem ci ñoom te duñ ko sàkk ki ci topp mooy ki nga xamante ne buñ sàkkoo ci moom mu faj seen yitte te loolu wax nañ ko waaye ka nga xamante ne mooy kii yées nag mooy ki nga xam ne aajo du fajoo ci moom moom ku ñëw ci moom sax du tax sa aajo faju wala yaasu billahi taala mu tëjee ko nag Sëñ Tuubaa mii nga xamante ne mooy suñu royuwaay di suñu féete ci fépp ci nga xam ne moom rek la ñuy xool mu wan ne ni mu jariñee mi def fi wan ne moom saa nafañ bi laa dara daa wax ne bokk na ci kon ni ñuy ni ñuy wooteelee Sëñ mooy xamal nit ñi niñ mën a jariñoo ci Sëñ wan njariñ li nekk ci Sëñ Tuubaa ba nit ñi xemeem ko ndax nit dafa bëgg njariñam kon ginnaaw suñ tubaab moo wax ne saa nafen bi laa dara ri feeñal njariñ ji nekk suñ tubaab ngir nit ñi xaymee ko ba mën a ñëw ci ni ñu woo ni ñu wooteelee suñ tubaab la bokk te loola day dugg ci bunt bi nga xam ne moom la ñuy moom la moom lañ doon waxtaane murid yi mësuñ cee jóg jànga wax na ko ci seen blaat jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo woot suñ tubaab ñëpp wax ko suñ muntaxaa mi rek wax ko ci ay discours am sax buñ ci taxawoon ko jàngat ndax wax na fii ci penk bi ci ak julli korité wala tabaski ne damaa war a wax te su ma sañoon su ma waxee moo am njariñ gis nga moom fi mu xoolee njariñ su ma xool damaa bëgg damaa war a wax te su ma sañoon su ma waxee mu am njariñ kon jàpp na ne ñi muy waxal jariñ bëgg leen a jariñ moo tax muy wax ak mooy moo tax muy wax ak ñoom kon loola ma mës cee jóg gis nga ni ni mu yittewoo kon suñu boo nee bi mu ko waxee ne ko damay dem ci jumaa ji jotaay bi maa koy def moom mu muntaxaa dana ko gis naa kayit wa gis naa ñi nga xamante ne ñoo cay nekk nga xam ne mi ngi topp programme bi loolu li mu tekki mooy la yonent bi alayhi salaatu waxoon ne ku yittewoowul yittey mbindeef yi bokkoo ci ñun man lam yextam bi umuril muslim fa lay sa min naa ku bokk koo xamante ne li nit ñi nekk sa yit sa sa yoon nekku ci njariñal mbindeef yi sa yoon nekku ci kooku yonent bi sa salaam nee na bokkul ci bokkul ci man yonent bi salaam mooy génn na ci génn ci sëñ bi nag ci loolu la nekk moom yëmalewu ko tamit ci biir li nga xam ne mooy mooy mooy murid yi yemalewu ko rek ci Sénégal waaye daa génn ba fépp kon ñi nga xamante ne ñoo bëgg a jariñ mbindeef ak fu ñu mën a nekk bokk na ci li ñu leen mën a jariñee fi mu ne nii mooy di saxoo di ñaanal mbindeef yi di ñaanal jullit ñi fu ñu mën a nekk mbokk ya nekk Palestine ak Gaza ñu leen not leen di xeex ak ñoom bokk na ci ni leen mën a jariñee ñun te ñun ñu nekk fii mooy di leen jariñ di leen ñaanal yàlla xettali leen dëbbu leen kattan bañ mën a résister noonu bi nga xamante ne mi ngi leen di song loola ci ci ci jariñ mbindeef yi ci la bokk murid yi mësuñu cee jug boo xoolee yi ñu taxawal yëpp ci ay daayira da gis Tuubaa ci kanam wax nañ léegi bokk na ci liy jariñ mbindeef yi mooy nga dindi lu leen mën a lor ci aw yoon gis nga taataay bu amee niñ leen niñ leen dimbalee Tuubaa ci kanam bokk na ci li tax mooy nga gis ab teen nit ñi di ci mën a jariñoo wala nga jëmbatu garab maawu rahmati mi ngi fi di di di yëngu ca loola ci loo xamante ne njariñal nit ñëpp dañ ci dañ ci dañ ciy nekk gis ngeen ñoo xamante ne ci taamir la ñuy jëfan la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy yëngu mooy fexe ba di taxawal ay hôpital Matlaboul Fawzayni gis nga seen hôpital bi nga xam ne moom lañ taxawal Touba ci kanam di ko def mbootaay yooyu yëpp di ñekk ñoo xamante ne dañuy wéyal liggéey boobu nga xam ne moom la suñ Touba xàlloon te mooy moom la ñu tuddee xidma mooy jariñ mbindee fi rek te yàlla rek tax doo ci xaar luy jógewaat ci ñoom jëm ci jëm ci yow moo tax mbootaay yooyu ñu woo leen ci thème bi ñu fekk si ko ñu ci ñu ñu diglu waxtaan wi xam ne tomb bi ñuy waxtaane ci biir loola ñuy liggéey ñoom ngir jariñ mi def yi ci lay ci lay dugg kon suñu boo waxtaan wi am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm day mel ne waxtu bi jege na di ñaan yàlla suñu borom mu dool la kattan gën a nit sam xel ba gëstu yi nga xamante ne yaa ngi koy def mu wan la ci aw yoon xalal la dindil la mboolem pakk yëpp ba fi nga ci bëgg a egg nga mën ko ci egg ni nga ci bëgg a jariñee jullit ñëpp nga jariñ leen ci rawatina murid yi in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu suba insha danañ amal beneen jotaay comme niñ leen ko baaxoo ba di digee dig di digee waxtu wu nekk danañ ànd ak waxtaan wu am solo woo xamante ne bu gënta am solo wi itam du ko yées incha allah di sant mbooleem chaine de télévision yi nga xamante ne doon nañ jàllale waxtaan wi di ci jiital seen bi nga xam ne mooy chaîne jumaa ji muy MK TV Muqaddamatul Xidma TV ak mbooleem euh, jumtukaay yi jokkoo yi nga xamante ne doon nañ jàllale jotaay bi ngir wasaare ko ngir ñëpp man cee jariñ ci loolu jariñ mbindéef yi rek ci lay dugg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa xayra bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa